balaa ko Seck ñu woo ko mu jóge si loosam ñëw war a prester gaañu dafa am problème mu son yow mi nga xam ne ni nekkoon nga fa nga nekk bras droit am nekk conseil am foo xam ne ni war na faa yegg bala moo yegg yéenay mën a xool lépp ndax yemb na ngeen soog kaa bàyyi mu yegg ndax ngeen gisee loolu. xam nga man lu ma gisoon avant discours président di def discours am dañu waroon a jaarale képp ku war a def prestation. nga def ko ci majorité war a jàll loolu lépp comme président dafa invité ay nawleem ñu ñëw toog au moins ñu xool la culture sénégalaise gis majorité ñu ñu jàllee euh, jàll benn par benn comprendre nga ñu def ko bref bu ñu paree ñi war a jël kàddu wax président def discours am wax joxe le coup d'envoi euh, footballeur yi football match bi jeex ku nekk ñibbi man loolu laa gisoon mais comme peut-être temps bi gàtt na ba président def discours am joxe coup d'envoi bi ñu woy ba pare Turquie xamuñu les les la musique sénégalaise te ku leen tudd tooj leen sonorisation stade bi non Turquie gagné wuñ ko. ñan ñoo ko da ngay loolu nag da ngay dem laajte ko kan moo gagné sonorisation bi kan moo jël rakam teg ko ci ci ci régie bi bu ñu naxante. man tey bu ma yóbboo sama artiste mu war a def playback ci kan laa jëm ci animateur bi lan laay jël jox ko sama CD laa koy jox wala sama clé ne ko defal morceau morceau tel la artiste bi di playback lan la animateur bi di njëkk def en tant que professionnel. soo nee Turquie wu ñu sonorisation bi xaw ma kan moo ko géré su jëlee rakam jox ko dina xaw a lëndëm suñu boppu tuuti soo ñu munee. dama leex ne la sonorisation stade bi. ça n'a rien à voir ak sonorisation bi ñu doon defee animation à l'ouverture moo géroon sonorisation bi Youssou Ndour moo ko gagné moo gagné marché sonorisation bi ci li ma defee kan kan moo yoroon régie bi njaga Ndour c'est vrai ou faux par euh, professionnalisme tey boo doon woykat ma ànd ak yow nga war a playback bu ma àndee ak yow bu ma egsee damay jël sa clé kan laay seeti dama koy jox le gérant de la boîte déedéet kan laa koy jox l'animateur laa koy jox l'animateur ah, lan lañu ñuy animé par ordinateur bu ma ko joxee clé bi lan lay njëkk a def rof ko ci ordinateur bi play xool bind bind ci waali sec stade pour bañ a juum sax insister bu dee ay morceaux yu bari la noonu da ci day duggal clé bi kale ko ci ordinateur bi bind ci Wally Seck sax estat euh, maître Ablaye Wade root ci sama kale jox ma foofu juum amu fa dañuy waxante dëgg président son discours est clair je veux faire plaisir à la jeunesse sénégalaise na xale yi nga xam ni au moins le jeune talent artiste yëpp jaar ndax moment de Covid bi ñu tëdd seen kër comprendre nga liggéey ñu mu bañ leen a frustré comme fête bii nañ ko def genre du fête euh, du genre fête de la musique na artistes yëpp ñëw artiste bu ñu bëgg a jaar jaar nga fa amoo benn problème moo jaaxal ñëpp ñëpp jaar nañ ñëpp joué waali war a ànd ak xale yi ñëw joué li njëkk nekk problème lu ñëpp di posé wu amul animateur wala présentateur wala maître de cérémonie boo xam ne ni dina présenté Wally ndaxte fépp foo xam ne nii Wally war na faa joué dina am koo xam ni moo koy présenté ñoo xam ni Wally mu ngi ñëw moom moo war a ñëw def prestation def son amu fa woon quel était le problème. mais problème dina fa am parce que li la rek président fête de la jeunesse la wax. waykatu xale yi. lañ bàyyi waroon na bàyyi ñu ñu ñu ñu exprimer wu. wane seen bànneex ànd ek la jeunesse sénégalaise ci stade bi mu leer mais bu demee ba des vieux de soixante cinq ans soixante dix ans di ko xëcc xale yi waxuma la ak leneen li dal waali mais leneen dina ko dal quel est le problème ku ñuy jiiñ dëmb ngay soccoo yeelu liir mais yow la yow la il faut oser le dire nous sommes tous des ay sénégalais la ñu. kon problème dañoo ne son waari nekku fa wala wala problème mu technique lañ wax wala lan la. doon bañ waali yoon yanu coow li xam naa estat comme jeunes yëpp ñu ngi doon xaar waali dañ doon ragal waali yanu coow li loolu lañ doon ragal peut-être loolu lañ doon ragal. waali yéeg def presque dix quinze minutes ci ci scène bi. badu liñ naan tombé moo waral ay gaaf. te am na loo xam ni peut-être yàlla moo koy dogal mais mënoo yor sa caméra bi ànd ak sa caméraman bi yor nga yor micro. ñun la Badou defal ñu interview les ministres nga jël ministre des sport def interview caméra bi dox micro bi dox nga def euh, ministre de la santé caméra bi dox mi nga ku ci nekk nga jaar caméra bi dox lépp dox mais bëgg a ñëw ci ministre de l'intérieur te jubóowu leen nga ni caméra bi doxul euh, micro bi doxul mais loolu lan lay nduru waali lañu gëmul moom la ñu bëggul il faut oser le dire C'est Wali qui les dérange. C'est Wali qui les dérange. naka Wali bu loolu amee yéen a ko wàcculoo seen bi walla lan la. Wali nag am na fulla am na fayda loolu moom dama la koy teel a fulla ak fayda. noo ci Wali la fekk baax maa la ko wax loolu am na du tooñ mais am na fulla am na fayda. ay bàyyil comme sa morceau bi doxul kaay nga yéeg sama morceau pour lan. ku lool. Bad Youssou Ndour. moo ne Waly sa comme son bi doxul mu bu Waly wàccee ak yeneen ak yeneen ak yeneen jeunes yi mu àndaloon ak ay ak ay kilifa yu mu àndaloon pour jouer musique bi son bi doxul mu ñu génn kon dañ ko waat pour mu ñëw. da ngay xaar ba may yéeg nga ànd ñu ànd sama morceau. te Waly ànd ak ay nawleem woo leen ñu bàyyi seen lépp day nuy lekk ñu reeruñu nelawuñu. ku mel ni ay Tarba Mbaye caat élage euh, ñoom Fallou Dieng ñaata guddi nelawuñu nekk studio Papis Ndiaye di répété ba defar seen morso seen xalaatu bopp waa li war koo ñëw war a ànd ak nawleem yooyu di ay moroomu gorom yooyu ñu yéeg pour mën a def seen prestation ñu ni ko non CD bi baaxul mu ni ok muy dem keneen Youssou Ndour di ko woo pour mu yéeg ànd ak moom ci kaw seen bi no du ko def as gor booy boobu moom kay day ànd ak ñi mu defal compilation yi yaa ngi comprendre àndul ak ñi mu def compilation day ànd ak ñoom yibbi mu defa maximum quinze minutes sur scène taxaw instant yooyu yow yaa ngi foogoon instant lan moo nekkoon sa réaction yi non man man bu ma ci desoon man waale sax du fa def quinze minutes biñ ñëkkee jël euh, son faal yi euh, Fally Poupa damay ñibbi Fally Poupa n'est pas un Sénégalais c'est un Ivoirien de le président a été clair c'est une fête de la jeunesse sénégalaise da nga fa gis beneen waykat bu dul sénégalais da nga gis badu bu ñu naxante da nga gis un chanteur gambien mbaa guinéen y avait que des sénégalais lu fi Fally Poupa wut son Fally Poupa wut si bu doon sax par écriture euh, kiy tàppe ci ordinateur bi dafay juum euh, bu doon waali sec ak faali poupa c'est diamétralement opposé bu doon faali poupa sax waali poupa la tudd nga mën a ni kii peut-être bi muy tàppe au lieu mu bind W la la première du tur waali dafa juum def F muy faali poupa ñëw mais faali poupa tuddul waali poupa di Wally Seck la ak Fally Poupa erreur mënu faa am ak ku mën a toog ci régie bi yor sa yor clé war a teg kii bi dangaa def lu la neex bi son Youssou Ndour waree yéeg dañu cee juum mais ñu gis mu yéegee ba wàcc wàcc na ba dem ñu soog a teg son bi mais son Youssou Ndour son am daf ci dafa yeex c'est un professionnel dafa yeex Mbaye Gueye fay bi muy yéeg avec bi muy tëggal les majorettes avec les tambours ak yooyu est-ce que est-ce que dégg nga ci débrouillement ci son bi ba pare ba pare dama leex benn affaire Ndiaga Ndour fii ci Sénégal il fait partie des maire en son ku mu bëgg sa son jag par force day jag parce que macha allah jàng na ko am na xam-xam bi du ci juum juumul ci magam juumul ci Youssou Ndour di juum na ci juum juum na ci soow juum na ci soow mbéy non déglu ma rek. personnalisme bu nekk si si si staffu Youssou Ndour ak seen staff mais mais. Ndiaga Ndour laa lay wax man je pèse bien mes moo nekk en régie moo yoroon programmation bi Ndiaga dafa juum ci soow Youssou Ndour Youssou Ndour dafa playback mbay ah. euh, Mbaye fay Faye live la tëgg avec les tambours gis nga dégg nga sonorisation bi ni mu nay xewoon Ndiaga daf cay juum. Baaba Maal bi muy def documentaire boobu est-ce que son bi dégg nga cee juum c'est un professionnel njaga kon bu ñëwee ba ci waali mu juum ci y'a un problème te ce problème là il faut mu wax ko na ko wax doomu aadama yi fan la ko teg parce que teg ko fenn njaga nduur naa ka fait une sortie am na am na tele am na rajo am na journal na wax ak do jaam ñi parce que y a des milliers de sénégalais yu jugee seeni kër dem ci stade ba rien que pour voir Wally Seck après les événements mais njaga daf ko yàq tas yaakaar boobu bu def ñooñu ba tegul Wally Seck tegul Tarba Mbaye tegul Thiat Seck tegul mais na génn excusé wu devant devant cette population sénégalaise loolu moom mooy dëgg. est-ce def nañ li ñu waroon def ci dem. kele bi joxe son bi à temps lijjanti ko gérer ko comme ni ñu ko defee si côté Youssou Ndour. waaw Badou looy déggee Wally Seck n'est si cuunewul noonu di te ñu ko wër cuunewuñu noonu lan moo tax lan moo tax après bi Wally demee ñu teg son doo ma ni heure boobu lañ jot clé bi di te Wally artistes yi njëkk ci stade bi ci la bokk te Wally c'est un professionnel. te xam na leen lan moo tax Wally yóbbaale micro xam nga lan laa la yëgal Ndiaga Ndour la tuuma bi dal te pour mu teggi tuuma boobu na génn wax ak les fan la ko teg fan la ko teg encore une fois dama la koy waxat Youssou Ndour bi muy playback soom dafa réer danga cee dégg benn bruit ci soom Baaba Maal bi muy playback da nga dégg benn son kii ci pom Pape Diouf bi muy playback da danga dégg benn bruit ci son ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais pourquoi waal yi war a def playback kenn gisul son waal loolu am waali génn stade bi yëpp wàcc topp waali mënul sax génn ñibbi waaw parce que xam nga sénégalais moo bëggul euh, injustice yow tey booy dox ci mbedd mi léegi gis benn waay ak di dóor doomam sax faaw nga taxaw parce que sénégalais bëggul injustice te encore une fois dama koy wax rek ñii rek la ñu nekkee ak ñun mayu ñu wàlli jàmm mayu ñu ko salaam yàlla nag gëmmul nelawul yàlla gëmmul nelawul waali mi ngi ci limu war a nekk mi ngi ciy def en tant que patriote sa équipe nationale jël coupe d'Afrique sa président tabax stade bu mel nii tudde ko président Ablaye Wade woo jeune yëpp stade bi fees dell nga yàq sa pa yàq sax say guddi ànd ak say nawle artist des nuits et des nuits di répété ba génne seen benn son war a dem stade ñu xañ la ko no àq la àq la. ñu gis avant l' événement son petit frère Bambali Seck def benn déclaration sur une télé de la place ne tey dëgg la waaye dafa jàpp ñëpp ni boppam woote na su wootee nag ñëpp war nañ kaa wuyu waaye gars yi gëmuñu ko wax loolu ne moom suñ ko invité demul yónneewul ndaxte dañ nar a soboote yëfu mag ji affaire bi demee nii dafa jotoon ay écho walla noo gisee déclaration xam nga xam nga loolu peut-être Bambali moom peut-être euh, dafa am daf ko sentiroon daf ko sentiroon barki Serigne Saliou Mbacké man mii dama ko sentiroon man billahi wallahi tallahi man bi ma duggee estat ba toog xool laa ni tey ci côté organisation tey du dox ma gis Saliou defee lu muy def ba ba dem te Wally waroon def loolu jagleel ko président Macky Sall ci ginnaaw président Macky Sall Wally waroon faa prester loolu. moo tax ma ni la sànq ci début émission bi dama la ni ñoom bu ñu bëggoon jàmm avant bi président dugg si ba hymne national bi tëgg ba ñu toog la ñu waroon a faire voir. la culture sénégalaise ñi nga xam ni ñoom la président invité mm-hmm. majorel yi jàll waykat yu ndaw yi jàll artistes yi ku ne def bu doon benn prestation bu deux minutes buñ ko defee président wàcc def son discours ànd ak président FIFA ñoom ñëpp ñu def seen discours président joxe coup d'envoi bi ñu football match bi mu jeex ku nekk ñibbi xam nga boobaa président dina gis fête bi xew ci stade bi yëpp artiste bu ne di nga gis li nga def mais defuñu loolu defuñu loolu di sa borom kër invité naa leen reer ngeen ñëw ñu war a toog reer ma ni soxna si defaral ma ma reer maa ngi dem après gars yi invité yi bu ñëwee nañu reer fu mu am invitation dafa amati te fête de la jeunesse le président wax pour les jeunes le président wax xale yi la wax xale yi la président wax mais mag ngi di ko xëcc xale yi kooku xale boo am leen fulla vous la jeunesse sénégalaise surtout les chanteur am leen seen fulla am leen seen fay fayda gëm seen bopp amul fii benn mag bu la ciy may dara man maa ko wax man sami Thioune mag ñi duñ leen may dara duñ leen yaatal ci dara duñ leen xajal ci dara te mag mu leen ci jekku rendi leen am leen seen fulla gëm seen bopp tracé seen chemin way li ngeen di way mu neex ngeen jaar fu ngeen jaar te li mag ñi bëgg bëgg leen ko man maa leen koy wax sinoo du ngeen am jàmm duñ leen neexle da dangeen dañ leen di boot rek. nekk lu doy waar tey Wally et son staff que si li nga xam ne nii moom moo am. Non, l'histoire retiendra. Mais ce jour-là, l'histoire a déjà retenu te dina nekk ci anal yi lii la yàlla dogal ndogalu ndogalu yàlla boo jis nag loxol boroom a nga ca sabotage bi àdduna gépp ñoo ko jugel seen bopp ñoo ko gisal seen bopp mais waali day continuer di liggéey inauguration bi turu stade bi waroon jëm ci kaw mais turu Wally moo jëm ci kaw waaw lii la yàlla dogal diw mi ngi ne di ñëw yàlla moo koy def ci jàmm diw la ñu tegal fauteuil bii tey yàlla moo koy def ci jàmm ku ko nangu nag doo sonn sa xol du jeex mais boo ko bajee bis bu ne nag yii rek ngay calculer yii rek ngay créer di def yii di indi yii sabotage yii di ko def te yàlla du ci ànd ak yow parce que saa yoo ko defee yàlla weer la saa yoo ko defee yàlla weer la moyul ma borom xol bu set te leer te oyof di taalibi di jullit moyul ma jëmm jooju ndax loo ko fexeel jéemal ko ko yàlla wan la wan la sa bopp fet bi ñu yàq sabote ko ci lan ci bëgg feeñ diw du feeñ te pourtant waylu mais bi mu duggee ci stade bi stade bi yuuxu nañu loolu rek doy na mais di masawu jeune artistes yi nga xam ni ñoom la Wally àndaloon def compilation bi di leen wax ne leen euh, lii la yàlla dogal gëm leen seen bopp continuer à travailler que vraiment lii àdduna gis nañ ko gàcce ngalaama te du courage du courage du courage lancer leen morso bi vraiment lancer leen ko sur ci flanc yëpp Sénégal yi déglu nañ ko sax déjà xam nañ ni morso bu nice la ñi nga tax ngeen def ko muy les lions de la Teranga jot nañ ci ñi nga xam ni ngeen ki nga xam ni moo tax ngeen def ko muy le président de la république jot na ci ñi nga xam ni surtout la base moo tax ngeen def ko mooy la jeunesse sénégalaise gis nañ ko bravo à yéen lii rek c'est une leçon boo xam ni daf leen di jàngal àdduna ngeen yeewu ci ëllëg bu président de la république woote une fête bu mel ni vous les chanteurs ngeen war cee dem am leen seen fulla am seen fayda bu leen kenn diriger doon leen say doon dànk wax jar na sax ngeen bind ñaan audience dem ci président toog wax ak moom li ngeen bëgg parce que le président est la rien que pour faire plaisir à sa jeunesse kon message bi ma lancé mooy loolu ngeen nag maa ngi koo bokk ndey ak bàyyi xam ne li kenn mën ñëpp ko ko fukk ko ko gën a mën voilà vive le Sénégal vive la jeunesse sénégalaise vive la musique sénégalaise sénégalaise bravo le Sénégal merci encore une fois monsieur le président de la République Macky Sall di la encourager vraiment euh, lii nga defal la jeunesse rëy na rafet na euh, yàlla na ci coupe du monde topp ak yeneen coupe coupe coupe tamit njiglaayu Sénégal yëpp jërëjëf mbokki internet people 221 ça a été un ngeen li nga xam ne nii ah, recueillir ko si suñu papa Samy Thioune mu wax ñi li nga xam ne ni tey moom moo nekkoon xalaatam ci inauguration stade bi nga xam ne ni dippee nañ ko maître Abdoulaye Wade mbokki internet yi ñun la ak yéen lépp loo xam ne ni nag bëgg ngeen kaa gis loo xam ne ni nag bëgg ngeen kaa xam fii lay xewee ci people 221 daw leen gaaw ngeen abonné waaye bu leen ci yem dee leen commenté di partagé mbir yi waaye commentaire lépp loo xam ne ni seen xalaat la rek dee leen ñu ko jox ñuy daw di leen ko indil ndaxte ñun la ak yéen xeex bi du jeex ba du 100 pour cent découverte la woon jaa ngeen jëf gaañ